baat mbokki jullit yi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ragal yàlla mooy jàppalukaay bi saa boo xamee ne nattu yoon wala jafe-jafe wala musiba mbokki jullit yi ñu xam ne ak nattu dafa bokk ci tërëjee sunu borom tabaraka wa taala moo di loo xam ne suñu borom tabaraka wa taala noonu la tëri mbir yi te mënees su ko soppi dafa bokk ci xikmaam ak xarañam koy nattu ay nattu yu loo yoo xam ne yii ci metti yii jëm ci neexit moo tax mu koy nattu ci ñàkk di ko nattu itam ci bari di ko nattu ci wér di ko nattu ci tawat ñu wopp di ko nattu ci ak ragal di ko nattu yi ci dara xel lépp loo xam ne nit ki da koy bëgg wala di ko bañ tax na ko ba ca biir boo xam ne day xool ba xam lii nga bëgg dana dox sa diggante sa diine dox sa diggante sa borom ngir lii nga bañ te ragal ko it ndax dana la tax a saari ci sa diine wala léegi moo tax suñu borom tabaraka wa taala ne wa balawnaahum bil xasanaati wa sayyiaat nattu nan leen ci li nga xam ne yu rafet la ak yi nga xam ne yu ñaaw la lu metti ak lu woyof laallahum yarji'uun ndax ñu mën di delluwaat ci seen borom di tuub waxaat ne wa nabluukum bi sharri wal xayri dana nu leen nattu ci jàmm ak ci fitnatan ngir xool leen ba xam nan ngeen di jëfe seen réaction nan lay def mu ne wax leen ko joxoo ndax ngeen xam ne man rek di mën a dellusiwaat waaye amul feneen ngeen jëf bokk ci yi bokk na ci yi nga xam ne képp ku am xel te am ngëm yàlla war ngaa gëm ne mbir yi xew ci kaw suuf ak lu mu mën a doon suñu borom tabaraka wa muy lu rëy wala muy lu ndaw mooy ki xam léppam suñu borom tabaaraka wa taala xam-xam dafa matale xam na lu mas a rek ci gannaaw te la weesu waaye xam na lépp luy ñëw ci kanam sax nga xam ne lu mas a rek suñu borom tabaaraka wa taala xam na loo su nekk moom maa farratnaa fil kitaabi min shay téere bi nga xam ne mooy lawhul mahfuus nee na bàyyiwul dara lépp bind na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne borom bi tabaraka wa taala bi mu bindee xalam muy bindukaay bi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala ci lay bindee mbir yi wala moom lay digal muy bind mbir yi ba mu ko bindee ba mu def ne ko ëpp bindal rabbi yow ma aktub lan laay bind yow sama borom mu ne ko uktub maqaadira kulli shay'in hatta taqumu saa bindal lépp loo xam ne lu nar a xew ci àdduna ba keroog yomal xew taxaw lépp loo xam ne lu daal ci kaw doomu aadama la su dee lu ko neex ci loolu bakkanam te doon lu baax sooy boobu xam ne yow xéewal na waaye su dee ko naqar yëpp nag metti ci moom nga fekk lu muy yàlla sooy boo xool yi dana xéewal la ndax bépp metti metti buy daal ci kaw yaram doomu aadama wala alalam wala ci njabootam suñu borom tabaraka wa taala daf ko ci faral di bàkkaar di ko ci digal di ci yàlla moo tax borom bi tabaraka wa taala di wax ne wa ala an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum amaana mën ngeen a bañ dara te fekk loolu mu ngi ci yéen wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun amaana ngeen bëgg te fekk loolu baaxul ci yéen ñu teg ci wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yàlla moo xam waaye yéen xamu leen ndax li ci kanam moom la ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax mu ne man de yéemu naa ci mbirum jullit ci mooy koo xam ne ay mbiram lépp yiw la su fekkee ne métit nattu métit dafa dal ci kawam maanaam su fekkee ne bég dafa dal ci kawam day daal di sant boromam mu doon ko yiw su métit dalee ci kawam muy am nattu ci gëm yàlla rek mën a def saa boo xam ne xéewal tege na ci loxoom yàlla la ciy sant si. saa bu natt tegu ci kawam ñu ngi yàlla kon ñu jël xéewal soxla waaye kooku mën a gis mooy ku feebar ki nekk ci wér gi yaram mën naa dem ba fàtte ci yow dina ci moom waaye gis bu ko taxaw di jël di jël rek te day wax moom ne fépp mën ci jàmm laa nekkoon. feebar yi taxaw àdduna tasaaroo boo xam ne jéggi na dayoo ba néew na wala sax dund ci kenn mu ci dund li noonu la ko wax wax dëgg yoo xam ne sama biir la ko tamit naa xam ne ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سكن وعافية nee na juróom-ñaar teg yi yoo xam ne doomu aadama yi mënuñ ci mucc bépp day am jàppale day am xaw jooy yi graphique daje yi ne la war a dajeel góor bi du gàttale boobu lu dégg soo ko gisee jafe-jafe daal bi wala ak yomb ak xéewal ak sotti ko xéewal jafe-jafe fay boobu ko séen soo gisee jafe-jafe fay boobu séen sotti ko xéewal ba ca tegu mooy feebar ak wér kon mbir yooyu doomu aadama yi dund ci seen diggante doo nekk ci biir yaa ngi ci biir doo nekk ci biir yaa ngi ci biir dëgg la tawat yi nag lu metti la lu waaye suñu borom da koy def ngir xikma maanaam dafa xam lu tax mu koy def loolu nag am na ñu ko xam am na ñu ko yëg ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne maa min muslimin yusibuhu adha amul benn jullit boo xam ne lor la ko daal min maradin fama siwaahu moo xam bopp la wala lu dul bopp illa xatta allahu bihi sayyi'aatihi fala taxuttu shajaratu wa rafaa nee na lépp lu ko daal loo ne lu ci moom la sunu borom tabaraka wa taala daf ci sippi di wadd comme ni nga xamee ne xobi garab su woowee day wadde ca lay daan ci suuf xalis boobu mi ngi ci Buxaari ak Muslim Buxaari génn na ko tey ak ci Abu Hurayra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ما يصيب المسلم من نصر ولا وصل ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه أو البلد وخمر وقل لقلق ولا جوع ولا يعقر ولا مكيب ولا لوع بدل تبقى جنبه jël ci jëm ci tànkam sax mu ko wala loxoom mu ko nee na lu dul suñu borom tabaaraka wa koy faral ci loolu ci bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw ci soxna suñu Ummu Salim ñu dikkee fekk muy onk man yow mu ne ko waaw yow Ummu Salim loolu daal da ngay onk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déet bul ŋàññi bu ko xas ndax moom kat day indi ay bàkkaar doomu aadama comme ni nga xamee ne ab taal buñ ca bëlee or day lakk la bokkul ca or ba or ba kese des mu ne ko noonu la koy def xarit boobu ñu ci musulma moo tax kenn bu salaale dara bu métti dafa nekk waaye fuñ koy gis rek muy muy muñ ànd ak bégteel dana dara ko feebar bu ñu la metti la suñu waxee rek mu dem ci borom ñu ne waaw yow ci metti bi ñu des ngeen la woo mu ne damaa xam ne neexitu tuyaara bi ciy teew moo ma fàtteloo métti bi nga xam ne maa ngi koy yëg yu nekk kon loolu mooy loolu ci gëm yàlla Euh, mbokk jullit yi nag buñ gisee lislaam di soññee ci nit yi lii daal ci kaw te ay na métti métti mu war ko muñ bu mu tax ñu def ne lislaam dafa bëgg nit ci saaku yi ay métti wala bu ñaan yàlla feer wala ay wasi wala yooyu déedéet lislaam kay li wax mooy bu loolu daal ci sa kaw ngay yor melokaan yi am nga xéewal waaye la mu tëralee nag mooy nit ka di ñaan jàmm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa aafiya ñaan leen yàlla ak jéggal ak jàmm ndax kat kenn mu si yéen te inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqiini xayran min al-aafiya gannaaw gëm yàlla ak wóolu ko nit ki amul xéewal bu gën a rëy am jàmm kon loolu tax na léegi ñaan jàmm yàlla na كيف هناك سلف صالح من طرف ابن عبد الله بن الشفيق nee na man day ma ànd ak sama di sant sama borom moo ma gënal ñu ma la tuuma yóbbu kon ñaari kër yoo xam ne bu ci nekk am na tiyaaba waaye nag bii moo gën ndax dinaa ko la jël tiyaaba ba noppi bii jàmm la benn yoon tiyaaba waaye dafa ànd ak mu ne ko boobu mbokk jullit yi noonu yëpp noonu liggéeyu fan yi tawaat yoo xam ne ni ñu ko mel rek feebar bu metti buy faagaagal di doomu aadama yu bari la di ko def ci anam boo xam ne yow du baaxul ñu di ko dégg ci réew yi nga xam ne soriwul dara ndax ci Afrique bi gën a soow la waaye sunu borom tabaraka wa taala def jàmm ba léegi sunu réew asiru loolu nag dana jaaru jullit bi mu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax xam ne lu ñëwagul lu nekk am na nu ñu koy faagalee ko ndax yooyu bëri na tomb yi ñëw kon ay njëriñ la yoo xam ne nit ki mën na ci farale ba su borom subhanahu wa taala musal ko ci feebar bu ñëw te wala bépp feebar boo xam ne faagaagal di doon ñaar jéem ko ci jëf mooy bari ñaar ñaar doo am moom dafa doon loo xam ne mbiram dafa màgg màgg woo xam ne jullit bi mooy gànnaay lu mag Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhu sallallahu alayhi wa sallam bi baat yi saa bu masaan xëy allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya yow saa borom maa ngi lay ñaan suñu jéggal ci àdduna ak alaxira ba mu des jëkk ba allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya yow saa borom maa ngi ak jàmm ci diini wa duniyaay ci sama àdduna ci sama diine wa ahli wa maali sama njaboot ak sama alal allahumma stur wa aali rawaati yow sama borom maa ngi lay samay awra samay ñaaw fii te musal ma làq ma ci lépp mooy tiital اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ برحمتك ان اغتال من تحتي mu ne yàlla ku sama borom maa ngi lay ñaan nga wattu ma sàmm ma ci sama kanam ci sama gannaaw ci sama ndeyjoor ci sama càmmoñ ak ca la ma tiim di muslu ci sa màgg gi yow sunu borom tabaraka wa taala ñu di ma yow nga yow nga ko xam suuf la may jóge kon tomb bi ci ci luy fekk doomu aadama yi musal leen ci wabaa muy mos bi ba mbas moo xam ne dañu waa ci seen kaw mooy ñaan dañu bari nag ñuy dénkaane ay fàttali pour ñuy fàtte tomb boobu dama ñu jël solo ñaareel moo di set set loxo doomu aadama dafay xaw bare bare bare ci biir tawat wala ci biir doomu jàngoro yoo xam ne ñëpp di tawat su ko defee nit ñi fonk laxas loxo bi saabu loolu ñuy wax ci wàllu wér gu yaram wàllu santé dañ ciy soññ buñ fonk moo xam lu ji nit koy lekk la wala su lekkee ba noppi wala su génnee ci wan wala su joxoon ay loxo bi doomu aadama raxas loxo bi daal muy set kooku ci cosaan bi wér gu yaram bi ci la bokk ñetteel la mooy environnement bi ngay dundee muy kër gi ñu fekk ne ñu góorgóorlu ba mu set lépp luy noo xeetu bari ñu fexe ba génne ko ba ci liggéey boo xam ne mooy lu sell la muy jub ba ngay suñu lu jël wala ci suñu soppi ci kër jàmm wala ci kulu kër jàmm wala ci mbedd waaye dafa am te jumtuwaay yi ñu ko di ko doxal foofu la waaye war a def ñeenteel ba mooy képp koo xam ne suñu borom nag borom la da ngay yàq ay malaat di ko jege ci sa kër foo toog nga di leen sànq koy seen wecc ndax lu bari ci feebar yi ñuy ragal ci malaat lay jóge juróomeel ba ndox bu nit ki naan mu doon ndox boo xam ne mu set la te it bu setee ba noppi mu sàmm ko lu koy taxal wala mu koy sàmmee lu jëm juróom-benneel ba mooy sàmmante lépp xam ne dafay fekk sa bopp di fekk sa bopp yi nit yi wala sa bopp yi di ko doo leen doo leen ñor ndax nekk ci biiru bi ba mu yàgg nga jékki-jékki rek gis ngay ñaareel ci suñu bakkan ginnaaw bi dem ci nit ñi wala nga sëqat ak njëriñ si biir dem doomu aadama boobu dugal naa pegg yi dugal dugaloo lay am ak feeb kon jaarul nit ñi yor mosuwaat boo xam ne bu dee gis ci woon ñu sëqat da koy teg ci gémmiñ ngir mu bañ a war fenn ci lenn loolu su ko yëpp ànd def loolu am njëriñ lay doon rawatina ci biir biir jàkk yi ak jumaa yi ndax lu foo xam fépp foo xam ne mbooloo dafa koy daje fu ne rek bérébu euh, tuxalu feer am na day ci kii dañ cay jëlee te kenn ku nekk da ngaa koy ñëw jaamu yàlla génn dem waaye yenn doomu aadama loolu ci yow. juróom-ñaareel ba mooy waxtaan ko ay aada yoo xam ne nit ñi dañ koo fonk ba di ko nuroo leen diine te bokkul ci diine nit ñi tàllal seen loxo nga ñaanal ñaan ba alal jëf li léegi si loo xam ne daal koy yore ma bu demee mën na lekk wala mën na ko naan mën na jëlee ci yow bi leen fépp li feebar loolu nit ñi dañ ko am ba jóg ci moom rek waaye diine xamul benn geste boo xam ne yow maanaam dañuy ko tàll seen loxo am ñenn doomu aadama yoo xam day ñaan ba nekk mën a tëdd seen loxo ñu daal di yóbbaale kon loola lu mat wax ni ko léeg-léeg nit ki ci boppam moo koy defal boppam xëy julli ba àggal daal di def li ci seen loxo def leen def leen def daal di waaye def ci sama yaram ki daal di ko daal di ko jox ko mu daal di jox ko moom lépp loo xam ne woon nga ko sa loxo mën na ko yóbbaale kon yooyu ñuy ngir na yoo xam ne aada yoo xam ne nit ki dëkk koo xamante ne daal di mën ci ak dundam rawatina bu nekk ci jamono yoo xam ne dañ ne feebar yi dafa raw juróom-ñetteel ba mooy wattandiku bépp bu xeetu rajo rajo ak jaxasoo boo xam ne bu jéggi dayo la wala ngay déplacé di jóge ci bërëb dem ci bërëb boo xam ne feebar préparé moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci saxiixayni ci xadis Musaab ibn Zayd radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su fekkee ne dégg ngeen feebar bu ñu àlle ida sami'tum bi taaxoon taaxoon mooy bépp feebar boo xam ne dafa gaaw ci faagaagal doomu aadama te gaaw ci wàlle nee na su ngeen ko déggee ci benn xalaat la ko ko am bu leen ko defee ko booba béréb moom bu leen déplacé mu ko jëm fa wa ida waqaat al ardi wa antum fiha su fekkee nekk ngeen ci dëkk wala béréb ba yàgg ñu ne feebar booba ñëw na fa falaa taxruju minha dina bu leen génne toog leen foofu boo déplacé fekki ko mën nañ laa wàll boo jógee fi mu nekk dem feneen itam mën ngaa wàll ñeneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaan na ko ci beneen xadis la bi Hurayra mu ne bu leen jël ku feebar di ko yóbbu koo xam ne bu wér fa nekk bu leen jël ku feebar di ko dugal koo xam ne bu wér fa nekk loolu la feebar bi wàllee moo tax ñu wax juróom-ñeenteel bi mooy jaar na ci ñëpp ñoo xam ne dañoo nekk ci ay frontière ñu leen ko wattuloo te mu teel nag béréb boo xam ne day ngeen yokk feebar wala jaaroore feebar mën nañ fa jaar yi dugg ci nit ñi jaaroore yi ëpp frontière yoon jaaroore yi joxe ndigal la day ko ëpp ndax yàlla feebar bi dañ déplacé di dugg foo xam ne ànd ko woon te loolu koy dëppoo ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis boobu wees léegi fukkeel ba moo di li nga xam ne mooy média presse bi moo xam ne ñuy dégg la wala ñuy bind la loolu ñuy jàng responsabilité bi gën a rëy ci seen loos la tey jaarul ñuy tasaare ni xabaar yoo xam ne dafa aju ci lu mel noonu di wax ne lu ëpp la ci réew mi dafay dugg ci ndax loolu musiba la moo xam ne mën naa jural lu bari bari ci jafe-jafe jafe-jafe yooyu bokk na ci moo di tiital doomu aadama te sànni tiitaange ci xoli doomu aadama yi kooku musiba bu rëy moo xam ne mën naa tax ki feebaruloo sax mën naa feebar wala ñu fekkoon feebar faa feebar yokk ngir jiitaay jiitaay bi baaxul ci nit kon dara na ci benn doomu aadama ñuy jiital beneen doomu aadama rawatina diggante ci nit ak nit mën naa tiitloo it ña nga xam ne dañoo jógoon bëgg a dem ci réew moom ne ngir yóbbu ko loo xam ne seen njëriñ la boo xam ne commerçant boo xam ne wax dëgg baax ak seen alal ko taxaw la jóg moo xam ñu jógoon sax dimbali ci xeex ko war waaye bu ñu déggee ne loo xam ne dinaa ko war a mën kon du ma fa dem daal di béy li am mu doog a baax su fekkee loolu nag dafa nekk li mën a boo xam ne dañ ko wax te dara du ci dëgg kon boo xam ne ñu doon ko waxoon ñu doon ay xam asalaam. comme bu fekkee ne bu fekkee ak alal ci jamono ji ñu dund moo di mën naa tey julli yi ci bari ma maanaam la ci leen ko teg ndax bépp réew moo xam ne léegi yi jéem ko ñu dem la ko comme fu nekk fu nekk ba séerum réew déclaré ko officiellement eh, réew may war a def nañ seen déclaration ne réew sax am ak ñu jéem kon nag su fekkee ab journaliste yi mu defal journal boo xam ne amul benn responsabilité ci boppam xëy xëy rek daal di ne Sénégal yi ñoo ko tasaaroon ne ñoo ngi dégg ko daal di kon Sénégal yi ak Sénégal yi kooku dana lor ci doomu aadama moo xam fu nga wax ñu ngi ko wax lu waaye ñu ngi lor ci ay jullit loo xam ne war na ay ñàkk wax rek seen baax te man ko mu fexe ba jëlee ko mu ko musul rëy moo ne kenn waru ko fooyee kenn waru ko caaxaan wala suñu borom baax wax ne lépp loo xam ne dafa aju nit ki lu muy jàng di ko dégg lu ne ci xolam wala ko dégg ci noppam wala ko gis ci bëtam bi ko lii kooku responsabilité la wala am wala am alayhi salaam yi ilm lépp loo xam bul ci wax inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaaika kaana anhu masuula dégg lépp ngay gis di ko dégg mu jóge ci yow di ko gis yaa ko bind wala yaa ko wane muy dugg ci xolam bu ko gëm jàpp ne noonu la yow bi fexe ba lool àgg ci xolam bu gëm ko am ci responsabilité boobu allahumma inna nasaluka ziyadatan fi din wa barakatan fi umr wa sihatan fi jism wa saatan fi rizq wa tawbatan qabla al mawt wa shahadatan inda al mawt wa maghfiratan ba'da al mawt wa afwan inda al hisab wa amanan min al adab allahumma inna الوسيلة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ذاكرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من وجاب تحتنا اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اعزنا اللهم اعزنا اللهم اعزنا اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا ذنوبنا رشدا الله ربنا solo